salaamaaleykum ami internaute salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV euh, Babacar maa ngi lay char maa lay fay Abdou Salim Babacar mu mel ni tey da ngaa yeewu lënd bi am cawarte waaw sant yàlla ah, <laughs> parce que boo yeewoo si jàmm rek ah. yeewu def li nga war a def xewlu mhm. loolu rek defe naa nit amul prime te yàllaa koy jox ah, comme jox ko tamit ñu sante ko ko xëy na ñëw ak ñaareel xaritu jëkkëram loolu loolu saa lay seur <laughs> waaw euh, kon su ko defee ñu dem seetaani revue daal di ñëwaat ba après loolu dina si dikkaat waaw <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 17 juin 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey maanaam soo bëggee dégg dëgg daal ci weekend bi la dellu siwaat ak li ci amoon ci ay yëngu yëngooy lamb moo xam combat ya nga xam ne bëre nañ ko ak jàkkaarloo ya nga xam ne amoon na ndax boo demee ca 2STV yi yëglikaay ba mu ngi nuy wax ne démb ci dimanche ji ci guddi maanaam kii di Moussa Ndoye bu Yaraax Sa Thiès bu way ñu ngi fa doon jàkkaarloo ak ak Aline Sey numéro ak ka nga xam ne moom moo di Issa Pouye maanaam yëglikaay bi daal weekend bi dafa sówoon lool weekend bu neexoon la te tàngoon yemu ca fële nga xam ne moo doon ca TFM wala ca cosaan tamit nga fa amoon benn jàkkaarlu boo doon dox ci diggante Tapha Tine ak ka xam ne moom moo di Boy ñang numéro 2 yëglikaay bi ñëw na ci lu mel ni ki noonu yemu ca de moom yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb ba tey ñëw na tamit ci weekend bi la ko commencé samedi ba dimanche ci ay combat ka nga xam ne moom moo di Boubacar Niang borom Ama Events moom moom moo tëggoon làmb fa nga xam ne moom moo doon ca bari ñuy géej wala boog ca tëngéej doxoon ci diggante fils de Zallo ak Aboy foofa moom fils de Zallo Aboy moo ko fa daan yemuñu ca yëglekaay bi ñëwal ñu tamit ca samedi la nga xam ne moo xewoon Arène Nationale ak ka nga xam ne moom moo doon Habib Farhat doxoon ci diggante Ndandi Fall ak Dame Sène ka nga xam ne moo di daam borom paquet yi daal moo dajjil ka nga xam ne moom moo di daan Ndandi Fall ab paquet dal di ko gagné yëglikaay ba dal di ñëw na ci lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci dimanche jooju ba tey ba bët setee maanaam démb maanaam boo bëggee dégg dëgg tamit arène national yëngooti woon na lool ña ko yëngaloon nag du ñenn ñu dul wàccaam production maanaam Baba Jaw ak structure ba nga xam ne moom la jiite andi woon fa ay grand combat yu baree baree baree bari bokkoon na ci Mbagnick Diouf Kayre ak ka nga xam ne moo doon Jacob Baldé waaye combat Sakho Balde moom moo yóbbu Mbagnick Kaïré Ardo dal di ko gagné ak ay avertissement maanaam euh, Mbagnick am na juróomi avertissement temps ba jeex ardo wa jox Sakho Balde doomi Sil Balde ndam la yemuñu ca beneen grand combat boo xam ne tamit amoon na ca bés booba doxoon ci diggante Mamor les Tigres te Fass Mbaaw ak Paul bu daaru ma nga xam ne nii mu nga nekk ca jëf soog a nekk foofa tamit ka nga xam ne moo di Mamor moom moo wàcc rek tibb tànki pôle daal di ko daan jël bu rëy a rëy yemuñu ta ka nga xam ne nii moom moo doon Kaaw Cissé numéro de moom tamit moo fa daan Modou Séréer jël bu gaaw a gaaw a gaaw maanaam rek prib dip la ko def ñu ne déet ne waay ñu dem ca grand combat ba soq gàmmu géey coow la bëri woon lool daaw ba ren ka nga xam ne moo di soq moo gàmmu géey tamit gàmmu ne day xeex daal di gëdd soq soq arrière riposte gàmmu raw di ko soq songu soq fàq ko mu dugg def kaat appi maanaam loolu tamit démb amoon na mel ni kon boo bëggee dégg dëgg daal lamb ji moom démb arène national yëngu woon na lool feesoon na dell tamit ci ay nit yoo xam ne ñëwoon nañ fa ñeneen keneen koo xam ne ni moom arène nationale la war a bëree ji yëglikaay bi ñëw na ci moom wala boog bëree na fa ñaari yoon muy Lac de Guiers numéro 2 digganteem ak Gris daal wala boog digganteem ak ka nga xam ne ni moom moo di Tapha Tine bi ne nag Gaston Mbengue daal dafa ignoré boobu komba maanaam moom waxu ca dara waaye yëglikaay bi daal xëy na tey dikkal nu ci lu mel ni ki noonu mel ni ki nag avant Boy Niang ak Balla Gaye 2 di daa mel ni daal Pikine ñu ngay continuer di résister ki nga xam ne moo di Balla Gaye numéro de ndax ku ne xam ne ne ba mu fay mujj a dugg dafa la fa jële woon digganteem ak Eumeu Sène yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu beneen combat boo xam ne ni moom taxaw na war am la 27 juin war dox ci diggante Gambien ma ngeen xam mu bul faale ak assurance bu mbuur yëglikaay bi nag ne na tey ji moom am nañu am ndaje ci altene ji maanaam ab jàkkaarloo ñoom ñaari mbër yi waaye ñeneen ñoo xam ne amoon nañu jàkkaarloo biig ci guddi moo doon Tidiane Faye mi ngeen xam professeur Lansar ba ak Aline Sey Junior bu écrit wàll yëg li kay booba combat tamit taxaw na waa Leewtoo ñoo fa jaar lu mel ni ki noonu mel ni kon daal boo gee dégg moom weekend bi tàng jër defoon na ko waaye bu demee tamit fa nga xam ne moo di ca Equivox moom xibaar yu mel noonu la na fay fekk ci li ne amoon na fa ci ay combat waaye beneen combat boo xam ne tamit neexoon na ba yegg ci lool moo doxoon ci diggante caatu foora ak nga xam ne nii moom moo di ardo mel ni que booba combat tamit vidéo yooyu ñu nga biir Equivox ak yeneen mbir yoo xam ne daal aju na ci wàllum làmb ci weekend bi daal lépp luy làmbi dóor moom toppaloon nañ leen ko ba mu jeex a jeex a jeex yëglikaay yi daal ñoom tey noonu la ñu dikkee leneen loo xam ne sunu làmb wax nañ ko ca tuus yi muy loo xam ne daal lu loo xam ne la daal yëglikaay ba xëy wax nu ko maanaam Aziz Ndiaye daal moo ko rakk ca bàyyi Ndiaye yëglikaay bi ne nag bu bëggee dégg-dëgg daal weekend bii nu génn daal ñoom ñaari frères ya daal bokk nday ak baay ànd nañu dem seeti ka nga xam ne moo doon roi des arènes di Modou ca këram nga nekk fa nga xam ne moo di ca lagros yemu ñu ca ñu ànd footballandoo ca place ya defandoo ay affaire mel ni kon daal moom soo bëggee dégg dëgg daal adversité bi bu jeexee daa mel ni gars yi jàmm la ñuy dund ak la nga xam ne nii moom moo di xéewal yëglikaay bi daal loolu la ñu xëy wax kenn koo xam ne moom weekend bi da caa daanu muy ndaan di faal te micro Equivox moom fa la waxee ne bàyyi na lamb ñu ne ko déet ndandi na bàyyi naa ndax nag lii moom xamatu ko xamatut fu mu jëm ay defetam bëri na lool kenn koo xam ne nii moom ay victoire la teglante woon muy dudu saane yëglikaay bi na nag démb moom boo bëggee dégg-dëgg wala barki démb Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas moo ko arrêté fa nga xam ne moo doon ca terrain gaal gi maanaam ñoom ñaara finalu dudu saane di xaddaafi Serigne Ndiaye numéro 2 Moussa Diop Korias dal di ko daan yëglikaay bi ñëw na ci ci lam bi simple jala loolu amee mel ni kenn daal soo bëggee dégg moom weekend bi joxoon na lool lool ak wàllum làmb mel ni kon daal leen ciy ñaawlu mooy ña ca rax te bokkuñu ca maanaam ñu indi violence ba fa nga xam ne moo doon démb ca Grand Dakar maanaam cosaan ca jàkkaarloo bu waroon dox ci diggante booy Niang ak Tapha ndax ñaari mbër yooyu ñépp dañoo d'accord ne seen combat dañ do doon xalaat naan combat la boo xam ne combat bi jàmmal parce que li tax mooy ñaari mbër ya comportement boobu la ñuy wane muy Boy ñan di Tapha Tine dégg ci yu mel ni ki noonu kon ñi ànd ak ñoom na ñu gën a nàmmaat seeni xel ànd ak seeni xalaat xam ne làmb di violence te am na ñoo xam ne itam bu bëggee dëgg-dëgg buñ sañoon tey làmb dootul am te pourtant làmb sport de genou la maanaam sunum réew ko moom kon daal li ñuy déplorer mooy ña fa indi violence ba nañu ko bàyyi te xam ne loolu jëmul kër ndax nag bés booy def violence di ko def ba jot ca añ ba su keroogee di nga ci bëgg a génn mu tëla ticc Euh, kon Babacar ginnaaw euh, ba ñu seetaani revue ba pare daal di ñëw Babacar mu mel ni que sunu làmb daal di dikk ak ñun euh, ci li nga xamante ni moo fi xewoon ci weekend bi. Mm-hmm. mun am ay combat yoo xamante ni am doole ak ay face à yoo xamante ni amoon na yii am na yii fomm. Babacar mu mel ni làmb ji fi mu toll nii sàjj na. waaw sajoon na comme noonu nga ko waxee sunu làmb xëy ko wax si xëtam bu njëkk mhm. boo xoolee weekend bu neex amoon na pour mhm. amateur u làmb yi parce que amateur lii moo koy dundalaa ah. mhm. ay face yu neex ay combat yu neex te defe naa amoon na ndax ku ne xam na ne démb si dimanche ji wala bi si guddi euh, sa 2STV suñu papa Gaston Mbengue woote woon na fa face à face bu doxoon ci diggante euh, ki nga xam ne moom moo doon Sa ak Moussa Ndoye Aline Seye numéro 2 ak ki nga xam ne ni moom moo doon euh, Issa Pouye loolu boo defe naa loolu itam Sénégal yépp a koy xaar ñu ñaan yàlla yegg si ak jàmm génn si ak jàmm yemuñu ca amoon na benn face à face bi nag dafa am lu ci am loo xam ne dañ koy déplorer ko ñaaw muy xeex ya gis dem buntu cosaan Assane Grand Dakar toj ay oto jàmbur su ma jumul Keba Kanté ma nga xam ne moom mooy doomu Cheikh Kanté sax yaakaar naa papam est-ce que du mooy parewu ko combat ñang mhm. mu ñëw représenté ko fa yaakaar ñaari otoom ci li ma jot dafa mel toj nañ ko fa toj feneen oto xaañ fa ay nit mu doon loo xamante ni aussi tamit dañ koy ñaawlu parce que yaa ngi koy wax sànq sa biir wax lamb doonul xamante ni pour affaire de violence la xeex la et que dafa nekk sport boo xamante ni c'est le sport de chez nous et war nañ ko sàmmaat bu baax a baax parce que maa ngi gis vidéo yi vidéo yooyu dafa ñaaw bien sûr non dafa ñaaw parce que image bi dafa loolu da maanaam Abdou lamb ñu dañ ko moom mhm. muy suñu cosaan di suñu sport national mhm. ngi dégg mhm. ñi ànd ak mbër yi wax naa ko waxati ko il fallait que ñuy doxe ak seen xel am na ñoo xam ne ah dañ naan lamb ay dof ay dof lañu ay dof lañu ay ah, yow des fois ngeen ñëw di prouver loolu. Mhm. loolu tamit ça veut dire que olof nee na am na loo xam ne maanaam ku ñuy jiiñ la ca des ngay fekk la ngay soccoo la ca des day xaw a yéeme xaw a yéeme si ay dégg la kon moytu bi baax na loolu daal lañ cay déplorer muy loo xam ne nañu fexe ba di ko moytu promoteur yi nga xam tamit ñoom ñooy organiser seen face à face ñu jël seen ay précaution parce que am na ci loo xam ne tamit souvent promoteur bi mën na ci am part de responsabilité parce que bu fekkente da ngay def benn face à face ci benn endroit boo xam ne lieu fermé la mhm. da ngay canaliser mbër yi ba la ñoo ñëw wax ak ñoom ku ci ne nga wax ko na ngay dikkee mhm. pour bu ñu dikkee nga bañ fa dajale public mhm. parce que face à face buy dajale public souvent ci stade nga koy def mhm. wala foo xam ne bayaal bu mag a mag la nga xam ne mbooloo mi dinañ fa xaj nga ni sa sécurité bu doy tamit mhm. mais gisuñu fa dem police après par la suite bi ñu fay gisi police boobu li am am na ba pare mhm. yooyu dañ koy ñaawlu di wax que ne tafaatin méritowul loolu booy Niang méritowul loolu te lambit méritowul loolu bi ci des waaw loolu daal lañuy ñuy ñaawlu ci face à face boobu amoon bi euh, Babacar mu mel ni que démb arène nationale yëngu woon na ak Galandou Diouf nga xamante ni ki nga xamante ni moo di Sokh Dame Sène euh, et Aboy Triomphe waaw ñoom ñett ku ci ne mhm. am nga parce que boo nee Ngalandou Diouf samedi suñu xarit Boubacar Niang ma fa tëggoon mhm. fils de Zallo Aboy mhm. ki nga xam ne moo doon Aboy daan fa fils de Zallo mu nekk loo xam tamit lu metti la ci fils de Zallo ndax su ma jumale bii mooy ñaar defet yu muy teglante ah. parce que bi mu mujjee daanu caatu ngéwél moo ko daan tey mu ñëwaat amaat beneen defet ci xale boo xam ne ah vraiment espoir u làmb la mais bon jeune la te ak ki nga xam ne moo doon daan di faal bu Grand Yoff muy ñaari dig dëkk yoo xam ne parce que daam seen parcelle la dëkk Grand Yoff a ngi nii defe naa ñoom ñoo digaloo xamante nañu mu nekkoon combat boo xam ne vraiment itam defet ba ca amit metti na trop ci côté daan faal ko mhm. topp li nga xam ne moo ko dal at yi passé mhm. ci ay defet mhm. bërki démb daam daan ko mais lamb noonu lay tëddee daam seen dafa nekk xale boo xam ne bu intelligent la bu mën a bëre la parce xoolee fa mu jaar ak moom ci biir bëre bi da ko ko sor rek ko tànk sotti ko ànd ak moom daan ko jëli bu rëy rëy rëy soq gàmmu gi tamit defe naa démb arène nationale dama leen la ren arène nationale mhm. ni mu feese woon ci Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène ren bi saison bi ubbeeg léegi mhm. démb mooy deuxième journée bi ci topp boo ko doon classé ci ay nit démb mooy deux euh, journée Baba Diaw bi dem mooy jël deuxième mhm. ci nombre de person yu fa ñëw mhm. parce que dañu dem ba ci rouge bi fees mhm. ba gars yi toog ci zone ba bay dem ca vert ba ça veut dire que kon la mu tëggun neex na moom baaba Diaw vraiment ak cam production soq tam daan fa gàmmu gi jël boo xam ne defe naa démb bëri nañu am lu leen bett ah. parce que ñu bëri xaaruñu woon foofu combat bi combat bi nag euh, dafa am ñoo xam ne c'est des techniciens jël naa ci ñoo bëri mu ñëw ci ñoom ay taxawaay te loolu daf ca parce que gàmmu am na loo xam ne moomu gën ko mhm. parce que ay tànkam moo tax mhm. waru kon ko def bi mu ko defee loolu moo ko indi defet bi ko tax defet bi parce que dafa jóg di dóori soq te soq moom itam boobu soq dafa ñëw bàyyee ko làmb ji ah di ko déglu mhm. maanaam doxale ak moom digganteem distance di ko déglu mu yóotu ko jotu ko enseigne jotu ko di dem waa ji laal ko fàq mu wàcc te gàmmu ay tànkam dafa am nu mu bindoo kon soq itam vraiment dem bëree na xel bëree na conseil et puis mbër itam di nga toll foo xam ne bu la public toppee mhm. nga am noo mel mhm. te soq xale la ci làmba soq yàggul si làmb booy bu ndaw la mhm. mais wax dëgg yàlla démb na mu def arène nationale si mbooloo dafa doy waa kon defe naa loolu tamit nekkoon na loo xam ne sas la woon mhm. ça veut dire que moo tax mu teg combat am si yoon ba daan ñu koy féliciter mhm. di encourager Gamou lii moo lay wan ne làmb pronostic ko ti ñëwagul wóoragul parce que ñu bëri 90 pour cent yi boo xam dañ naan nag Gamou man soq mhm. loolu moom maa la koy wax fii tey mais démb defe naa soq déjoué na jeu waaw favoriser les papiers. Mhm. nañ ca yem nañ ca yem waaye réalité terrain nag benn affaire la. benn affaire la Babacar nga wax lu nga wax lu am solo. Mhm. Euh, ku gis stade démb ni mu mel xam ni booy am nañu mbooloo. non yëpp euh, te sponsor yi tamit war nañoo ñëw. waaw parce que lambu démb ji. Mhm. xam nga lu ko lu ko lu ko lu lan laa ci gis mu ne neexuma. soq bi muy tuus. waroon nañoo xam ne kee soq la. lu koy wane mu sol ay blouson sponsoring. gàmmu gee sol blouson sponsoring. day neex ci amateur yi. waaw da ngay xàmme mbër yi. mais loolu mënu war a am démb. Mhm. parce que promoteur bi amul sponsor. Mhm. kenn la ñu gis mu ñëw di jàppale waa làmb mhm. mooy lii ñu yaakaar luy ne son muy Zador gii. gisaat nañ ci xëy na Baba Diaw am na beneen sponsor mais vraiment war nañu ñëw jàppale leen Aziz Ndiaye daal wax dëgg yàlla moo iwilam bii moom. mention spéciale. ah man de ni ma ko tuddee mooy dëkk ci dëkk bi boole kook defar dëkk bi. waaw mu koy def de ndax li nga xamante ni moo di huile j'adore euh, Babacar. vitamine A ga mu am. waaw man maa ci xam dara. Ah, waaye kenn du kenn du vermicelle j'adore. loo ca xam la ma ca xamu ko man mi soxna su ma ciy toggal. danga yow am nga jam xam naa man mi waaye macaroni ji tamit faj na ma lii te nag da koy toog da koy toog xam naa kii ñëw bees itam ah faw mu laal ma ci da doo la koy sponsorisé du mën a ñàkk ah moom moom moom moo sponsorisé sax affaire yëpp kon Babacar bu ko defee euh, ñu ni Pikine résiste Balla Gaye 2 avant booy Niang et Eumeu Sène waaw ça veut dire que boo xoolee bi muy mujj a dugg Pikine defet la fa jël am mhm. diggante mhm. ñu ngi am ci kaw Balla ndam mhm. mu duggam bu mu defet la woon ah mu jëm ci digganteem ak Boy Niang loolu tamit ñu yónni yàgg rek xool ba xam ndax bii yoon itam noonu lay demee waat wala nu muy demee waaw mais luy lu tëx xam daa yàggul olof a ko ah, wax Babacar mu doon combat boo xamante ni combat bu nar a neex la mystiquement techniquement ndax ñaari xale yëpp am bëri. waa parce que li tax mooy Boy Niang. bi ma gis démb biir TFM. maanaam mbir moom ambition la. te Kandji mi ko yor Moustapha Kandji. ma nga xam ne moo yor booy Niang ca xale ba tey mu nekk ak moom. nee na ma démb. da da daan nga dégg mbër. mu ne combat bi ak combat yëpp a yem. waaye nee na ma démb sunu combat bi yemul ak combat yëpp seen combat ak Tapha te xam nañ ne bu ñu jógee ci ci booy Niang lañ jëm kon ça veut dire que Boy Niang ak mm-hmm. stafam mm-hmm. am na lu ñu bëgg mm-hmm. li ñu bëgg Tapha Kandji wax na ko ci micro Equivox su démb ça veut dire que jaar ci kaw ba euh, ki nga xam ne moom jàll jaar ci kaw Balla Gaye jàll dem ca roi des arènes ah, ak keneen ak keneen ñoom loolu mooy seen ambition ah. waaye nag ndax dina yomb foofu la question bi ne question bi foofu la ndax Balla wax dëgg yàlla lu olof ne loo bañ bañ lëkk waxal ko da guddi noppam ak mën a dawam a bëree loolu moom am na waaye Babacar li nga wax rek nañu yónni yàgg yàgg bawul dara lu yàgg ndax tafaatin doomu bawol ji tamit mi ngi ci boo xamante ni macha eh, moom tax tafaatin booy ñang foofu foofu balaa ñoo jéggi maanaam pont boobu nañu xool le huit août daal mhm. nañ ñaan yàlla fekkee ko rek amiin amiin léewtoo andi na am solo amiin amiin Babacar mhm. waaye ñu des ci li nga xamante ni moo di suñu làmb tey Tidiane Faye Alioune Seye 2 euh, ficelé par euh, le professeur de l'Ansar de retour la huit août waaw le huit ba tey loolu ci combat tafaatin booy ñang la war a am waa Leewtoo ñoo ko taxawal ñoo ko taxawal ci contre Pape Thialis Faye mhm. le 8 muy combat boo xam ne tamit vraiment dina neex nit ñi parce que tax mooy Alioune Tidiane Faye mii dafa dem ba ñu bëgg koo fàtte ci làmba mhm. tey defe naa bu ñu ko indiwaatee indi nañ ko ci place am itam mbër la boo xam ne defe naa ne muy tafaatin mi ak Boy Niang jëkkuñu koo siiw wax dëgg yàlla mu nekk koo xam ne mën a bëreem xam-xamu bëreem te taayam tollul ni taayu mbëri mhm. mhm. mais nag lamb moo tëdde noonu amoon na occasion Alioune Seye junior tamit mhm. amaat na occasion parce que boo xoolee fi mujje moo tax kon yaakaar naa ne combat bu neex tamit day am le huit foofu mu mel ni Tidiane Faye euh, wala axlu lamb mën a mën na ko bien sûr euh, mun a xamante ni koo xamante ni Babacar ci tuus ma indi ca biir lamb waaw la séréer ah ñu mel ni que ba tey ñu des ak sunu làmb ki nga xamante ni moo di Gambia ak assurance du 27 juin. waaw un troisième njaaj. sëriñ un troisième ndaje un troisième ndaje. waaw un ñetteelu ndaje tey ci altine face à face la ñuy def. quoi xam nga man olof yi daa leerul nag de. waaw ab troisième ndaje ndaje ndaje moom. moo di toog jàkkaarloo waxtaan tey lay am ca Mbuur Euh, ñuy nuyu suñu papa Sidi Diakhaté moo fa jaar Gambien assurance combat bi war a nekk la 27 juin muy bés boo xam ne tamit defe naa ni lamb dina ko fàttaliku ndax ñaari mbër yi Gambien mi itam gëj nañ ko gis si lamb ji assurance itam am na lu mu bëgg kon Sidi Diakhaté itam tëgg na combat bu mag a mag a mag combat la boo xam ne combat bu am dayo la si lamb mhm. ci ku xam Tidiane ki ku xam Gambien mhm. xam ki nga xam ne ni moom mooy assurance mhm. loolu mu war a amee fa nga xam ne ni Abdou Saliou moo di ca Mbour géej mhm. ñu nuyu si di jaxate di nuyu waa région de Thiès bi yépp mhm. waaw ba tey ñu des ak sunu làmb Balla Gaye 2 B52 Eumeu seen Gris engagé waaw mais ki nga xamante ni moo di Gaston ignore Lac de Guiers 2 ak Tapha waaw a ah, engagé na mbër yooyu yëpp de mhm. waaye est-ce que ignore laa ko mën a man de jàppuma ko noonu ah comme li doomam a wax kere rek. Mhm. makana ah, parce que déglu déglu na set déglu na liir naa ko kere sunu làmb. Mhm. nee na combat Tafatine ak Lac de Guiers nekkagul ci seen ay plan. Mhm. lu ci nekkagul nag bés mën na ñëw mu nekk. mu dëgg mais xëy na tamit ñoom dafa am yeneen leneen lu ñu soxla. te loolu defe naa ñu ngi dox. ñu ba tey kon ça veut dire que dàquñu ko mais actuellement nekkagul ci seen i plan man foofu laa ko gisee ah. waaw. la doom ki kenn du moom Gaston moom. li nga Gaston <laughs> kay. Gaston daa daa waa mooy daa xuuf moom moom moom Gaston lamb di. waaw daa xuuf que nag. Mhm. Euh, maanaam daf ci yàgg. 92 mhm. ba tey mhm, na lu révolution lu nga am na révolution ci lamb wala lu ñu ne mënu ko da nekk si lamb ah, ñoom ñoom Tapha Tine <laughs> ah, ñoom Yékini Senior. Uh-huh. ñoom Modou Lo ñoom ah. ah loolu Gaston Mbengue la woon. ak Gaston production. kon itam am na méritu làmba. Mhm. dañ koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. di ko ñaanal bépp promoteur mi di ko ñaanal bépp doomu di ñaan yàlla tamit promoteur yi. Mhm. ku ci dugg ci dara rek. yàlla nga ci génn euh, mu mel ni bu làmb ji jeexee mbër yi ak promoteur yi ñoo bokk ndey ak baay. ñu gis ni ki nga xamante moo di Aziz Ndiaye ak rakkam ak ki nga xamante ni Modou Lo moo di Modou Lo démb ña nga woon fële euh, ca fi nga xamante moo di Lagrose. waaw maanaam sunu maanaam Aziz Ndiaye àndoon ak seeti Modou Lo mhm. ah, ñu partagé bis bu neex mhm. loolu itam defe naa ne mooy sport ah mhm. lamb ji amul amul amul pour man amul problème gis nga nit ñi ñoo bëgg a metti lu metti lul pour man parce que Aziz Ndiaye nit la Baye Ndiaye nit la Modou Lo kazalika naka noonu Modou goxam la am di ko défendre muy parcelle di ci wane jom fulla ak fayda ba tey mu nekk roi des arènes parce que Modou Lo loola waaye mën a wax mooy nit ku bëri jom la nit ku xam li mu bëgg la nit ku xam fu muy teg des arènes mhm. terewul Balla Gaye de suy bëree ak Aziz Ndiaye suy bëree ak Modou Lo ak Modou Lo Baye Ndiaye day ànd ak Balla Gaye mhm. mook Aziz Ndiaye parce que mhm. mooy seen mbër mooy ku ne xam na diggante Baye ak Balla depuis temps am na seen benn photo bu may gis jamonoy Ganila Baye a ngi sol benn Ganila Balla sol jëngal xaw ma ak benn tiset bu mag bu ñuy wax tuppak photo bu yàgg ah. kon ça veut dire que dafa yàgg mais terewul ñoo am ak Modou relation bu rafet ba bu làmb ja jeexee mhm. wala seex seex làmb ja kii am nañ droit dem këram seeti ko Modou accueillir leen ñu toog waxtaan mhm. parce que loolu mooy Sénégal mhm. il fallait que ñu jàppe sport bi bañ ko jàppe affaire animosité mais jàpp ne adversité la su jeexee day jeex ñu dund jàmm mhm. loolu man wax dëgg yàlla dinaa ko rafetlu trop mhm. te itam yaakaar naa ne ku nekk rek war nga ko mën a rafetlu la fait que Aziz Ndiaye jóg ànd ak rakkam dem seeti Modou Lo Modou accueillir leen mhm. loolu dafa nice quoi terewul bu subaa jàmm jàmm jàmm suñu waree bëri mook Balla dañuy bëri bu keroogee na Baye ak Aziz indi Balla Modou ñoom Serigne Ndiaye ak ñoom Papis ak ñoom Ibulaay indi ko ah ak ñoom Habib lamb ja am daal di jeex tàkk waaw ku daan yóbbu <laughs> <laughs> waaw euh, kon Babacar yaakaar naa loolu la sunu làmb indi loolu ci li nga xamante ni moo di lundi 7 euh, juin 2021 mhm. euh, mhm. waaw waaw loolu moo fi ñëwoon tey di kontaan ci ñëpp di mhm. wax ne yeneen ñi ci des yu ci baree bari ci làmb dóor jéeg yooyu mu ngi biir Equivox rek ku dem fekk ko fa ku dem di ko fa fekk mais di wax vraiment di kontaan dem parce que démb su ma dafa sedda ah. parce que boo xoolee weekend bi ña làmb yi nga xam ne am na arène nationale day ay làmb yu neex Boubacar Niang sunu lamb la nekkoon di ab journaliste. Mhm. moom moo tëggoon fils de Zallo ak Aboy. la fa nga xam ne moo di Rufisque. Mhm. kon defe naa kook tam ku ñëw bees la. Mhm. ki ci des mu tëgg samedi fi nga xam ne mooy arène nationale. mooy Habib Farhat. yàgg naa ñëw ci lamb di sponsoriser lamb ci turu l'écran waaye dafa jënd licence ci turu Habib. di tëgg lamb. samedi mu ñëw indi combat bu neex daam seen daan di faat. ki ci des démb mu ñëwaat muy Baba Diaw borom Thiam production. ñëw arène nationale di koo xam ne démb moo nekkoon deuxième journée mhm. ginnaaw Pape Ndoye bi mu fi tëggoon ak Jackson mhm. démb moo doon ñaareel journée mhm. kon mu wax ne weekend bi ñetti lamb yi ci na leen yàlla may kattan ba ñu gën a mën a a produire mbër mais Baba Diaw démb vraiment mention spéciale vraiment Thiam production moom démb su ma xool dafa sedd guy parce que lamb ji yëngu na mbooloo mi wuyu si nañu lamb ji neex na saf na lamb lool lool ko ziar di ziar staffu Thiam production bi ñoom Amdi Moustapha Abba Papa Ndaw gars yi ko wër yëpp yëpp yëpp yëpp waa Medina yi gis naa tamit nañ ko jàppale parce que doomu Medina la ah vraiment demit def na déclaration bu am solo ci biir Medina ak politiciens yi nga xam ne jàpp na ne ñu ngi xàjjale xale yi Medina yi ba ñuy xeexo ndax dégg nañ fa bërki dama histoire te itam loolu dafa war a mën a ñàkk politiciens yi encore une fois moomu ñu nit ñi nit ñi tamit nañu am seen ay xel man Abdou Saliou kenn du ma tax a xulóog yow ndax politique déedéet bu politique jotee mhm. am naa droit farak yow mhm. yow nga abi farak xulle mhm. bu élection jotee ku nag dem sànni coow li mais jërul xuloo jërul xeex kon bu nangu di xeexoo bu ko kenn jaral kaddu yi rafet na euh, voilà qui met fin ak revue de l'arène ñu àndoon ceeg suñu rak suñu mag suñu xarit ni moo di Babacar nga xamante moo ñu jiite wan nga xamante ni nag euh, moo di huile j'adore Babacar nee naa la lii waaw lii il faut que un litre la un litre la Babacar waa waa Sénégal xam huile bii lan ma lan la non réew mi xam nañ ko dafa ñu dina jàppaleen non fii ne daj na réew mi ndax Babacar vitamine A lekk goo ko am tiil bu set te sell te wóor. mi ngi déggoo li ma la wax daj na mooy Zador Zador jaa ngi nii. waaye Babacar nee naa la vermicelle Zador aussi tamit. bii amul gom amul gom amul dara bii bu la neexee Babacar. du gome bii bu la neexee da nga koy def soom bi lu la neexee nga def. loo ci bëgg def ko ci. def sa soow. waaye Babacar ñun macaroni la ñu taamu ndax ñun ay séeréer lañu. ay séeréer lañu waaw macaroni paya paya paya odu Papa Ndiaye Thiop. daal Zador qualité bi mu àndal nag neex. waaw non parce que li tax mooy koy liggéey dañoo xam li ñuy def rek. Uh-huh. te ku yokkul yaa la di nuyu waa Sador yëpp. di leen waaw taxawalee bu daan keroog ñu toog jàpp seen njàmb def seen yu weex. di di toog foofu di fo. waaw noonu la xale yi dañoo am ambition. dañuy liggéey boole koog boole koog boole ko waxtaan. ñu def sans pression waaw pression mais Abdou dinaa profité tamit remercier ñuy suivre ñëpp uh-huh. mais remercier tamit ñi nga xam ne nii ah Euh, bërki dem bu ñu may may soxna jàpp nañ ci bu baax a baax ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu du ma lim tey kenn limoon naa leen mais ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm mm-hmm. mais di nuyu ku nga xam ne suma ma xarit la depuis Maroc ñu koy wax sëñ Fallou Niang mm-hmm. ak Habib wala boog euh, Ndongo Fall depuis Italie mm-hmm. Serigne juur tamit maa ngi koy bégee maa ngi koy bégee bu baax a baax dëpp Italie Serigne Ndiour doomu yaraax di taalibi Serigne Touba di ku baax a baax maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax nuyu Ibou Laye su ma waay borom pro oto oto Ibou Laye bu xaraj maa ngi koy nuyu kooku suma waaye la borom pro oto maa ngi koy bigi bu baax di ko ñaanal jàmm mhm. di wax ne gars yi tamit ku bëgg oto bu baax mhm. demal pro oto ca ibulaay loolu moom maa koy def gratuite ku bëgg location oto bu sen mhm. bu baax bu mën a daw de seetil ibulaay pour oto ca yoof bul sono sa bopp boo fa demee dinga nga gis ibulaay dina la jox oto yu méngoog la nga bëgg yow ah, macha allah waaw kon ma nga noonu Babacar Lone Abdou Saliou Seye rendez-vous allah